salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com comme ni ñu ko defee saa su nekk tey ku ñuy dalal lu ñu ko laajte kooku mooy Sokana duñ def lu dul rek jox kàddu yi euh, mu nuyoog rek mbokk internet Dakarnet yi après njëkk a woon ci waxtaan yi Sokana ñu leen di di la ziar. maa ngi salaamaaleykum aleykum salaam maa ngi siyaar ñëpp di gërëm ñëpp bépp sénégalais bu nekk si dëkk bi. di gërëm waa diaspora bi. waaw diaspora bi surtout ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale si injustice yi nga xam ne moom la nguur bi di def ñu koy génnee. Mhm. di gërëm sénégalais yi jigéen góor yaay papa di gërëm baay seex yeeg ñëpp. Mhm. ñëpp néew doole yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi di sonn. Mhm. waaw fi ma bokk si ma fiyaa néew doole yi man nga xam ne falaa buujoo falaa bokk. maa ngi siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm waa net point com TV Dakar net. xam ne mu la yéen ñii seen liggéey rafet na parce que lii mooy wane injustice dëkk parce que yii bu baree rek dëkk bi dina dox waaw di ñaanal ñëpp jàmm wa salaam yaarama waaw ngi noonu kooku mooy Sokana yaakaar naa kenn door ko présenté te duñ def rek lu dul dugg waxtaan ak moom bu euh, buñ jógee foofu Sokana lay njëkk a laaj mooy que ni fan yi passé ñu gis manifestation affaire terroriste yi ne léegi ku fi euh, mbooloo bu ñu gis rek dañ lay jàpp comme terroriste ba ba amoon ci doon xeex nervi bi wàcc woon ci terrain bi jàpp askan bi du leen dóor loolu bi nga ko yëgee moom nan la la def. mais gars yi bu ñu xoolee comme li ñuy wax affaire terroriste. xale boo gis booy boo gis muy jeune jigéen ndaw xam nañ luy terroriste. même bu ñu xamoon luy terroriste seetaan nañ luy terroriste si télé wala seen téléphone ñu yor. moo terroriste dafa nekk loo xam ne mooy kuy semé terreur. te ñun sénégalais ñun xamuñu sax terreur ñun sénégalais xam lu ñu wax nee nañ Sénégal mooy town jàmm ak wér-gu-yaram ak teraanga en anglais ñu naan de peace country mooy dëkku boo xam ne paix lañ xam esam ne non kon bu ñëwee tey ñun suñu nguur yi ne ñun mhm. fii ay affaire u terroriste la ñuy tere ay ku def manifestation terroriste nga mhm. ñoom ñooy terroriste yi mag yi waaw ñoom ñooy terroriste yi ñoom ñooy terroriste yi mag yi parce que terroriste ku koy jiite mhm. moo ki koy nodd ki koy tudd kon koo koy terroriste bu mag bi ñoom muy ñoom waa nguur mais ñoom dañ cee voté def ne ne dañ koo bëgg mais ba léegi nii mënaguñ ko signé quoi mais ñoom dañoo voté loolu rek ne loolu dañ ko bëgg a fexe mu am fii Sénégal. mais voté ensemble bokkul ak voté peuple bi seen voté boobu bu leen nee ñu voté ko ensemble ensemble du dara fu ñu toll nii peuple bi la nit mun nga voté ensemble lu la neex mais peuple bi gëmuñu loolu. xamuñu ñun ban vote lañ gëm. kuy jàppal askan bi kuy taxaw peuple bi kuy taxaw néedu doole yi souffrance bi gars yi di dund. Mhm. étudiants yi lu ñuy daj chaque jour étudiants yi lu ñuy daj. Mhm. booy yi lu ñuy daj si town bi taximaan yi lu ñuy daj borom clando yi karapiti yi booy di cak-cak mhm. élèves yi ouvriers yi chômeurs yi. ñun kooku ngay votel ñu gëm la mais naan assemblée dangay ngay voté affaire loi ñoom bu leen neexee seen ñeen seen majorité am minorité ñu voté ko mais peuple bi mënoo fi voté loo xam ne ñun dañ ciy ñëw ne dañuy ànd ak ñoom munul ne comme neen dañuy bañ mbooloo bi tamit gis nañ ne ah, ñoo xam ne dañoo war ay mbooloo daayira ak yeneen ak yeneen sax am na léegi dañ cee xaw a tiit parce que mbooloo bi ñu wax ne ku ñu gis dañ lay jàpp théorie ah, ci wàllum terroriste bu ñu jigee foofu tamit ñu gis nervi yi fan yi ñu ngi wàcc di dóor gars yi entraîné tool nu leen neex jàpp di dóoraate te ñoo lépp senegal la loolu nan nga ko gisee. gis na Sénégal képp ku yor mbooloo dëgg. bu am looy tiit parce que mbooloo mooy xol yi lañ boole di fa wax dëgg. waaw képp ku yor mbooloo mbooloo buy dëgg amoo looy tiit si nguur. Mhm. man yor naa mbooloo saa su ne damay représenté. parce que man ragaluma ragal yëpp yàlla la. Mhm. su du nga juddoo si ñàkk ay seen loi pour tiital nit yooyu amul. fii Sénégal dëkku mbooloo la séeréer bi joolaa bi tukulóor bi mankaan bi mandeng bi étranger bi sax. Mm-hmm. mbooloo la ñun noonu lañ ñu noonu lañ juddoo ñun Sénégal. Mm-hmm. Sénégal taanu culture la free life moo fi am. Mm-hmm. kenn képp kuy ñëw naan da ngay jéem a imposer loolu. da ngay nax sa bopp. affaire nervi yi booy nervi yow ñooñu ñooñu du ñu ay nervi ay lan lañ kon. dañuy dof dof lu rek kuy jaay nervi ñëwal si man maa la gën a nekk nervi ñoom ne ay nervi lañ. nañ ñëw si nervi néew li doole bi maa ngi nii soo. ñoom nee na néer bi nguur bi lañ man néew néer bi néew di doole yi laa man maa fi taxawal waa peuple bi askan bi kon ay affaire néer bi tiitalul kenn de ñoom dañoo taamu koye yi ñu koy def ak région yi ñu koy def parce que dem Fuuta wala dem Matam foofu bëriwul wul parce que góor yàlla yi foofu ndeysaan ay jàmbaar lañ ñii dañoo dem kaaw ñi ñëw liggéey si town mais yaakaaruñ def ko sa saayet yow mais nañ ñëw town fii sa saayet fii town mu ngi nii yaatu mais booy woote tournée tournée sa town Mm-hmm. Dakar nee nañ mooy capitale bi fës. waaye duñ ñëw fii ñoom. Mm-hmm. si la ñuy xam ne kon gars yi lu ñuy woote ñemewuñu ko. Mm-hmm. nervi booy woote nervi da ngay ciblé ay booy yoo xam ne comme man sama genre day influencé booy pour booy di révolté wu booy di xam dëgg. di dund injustice bi ñu koy dindi. si ñooñu ngay ciblé dem indi leen nervi yi. bu ñu ñëwee barki maam Réma mase si la ñuy xam ne. motuñu ay nervi dañuy duul ah, nervi <laughs> <laughs> mi ngi noonu kon ñoom da nga yaakaar ne dañuy entraîné rek taxaw wër gars yi dem dëkk yoo xam ne amul tàng ñu fay wàcc. ñooñu entraîné wu ko koo si gis comme mbuus ñooñu dañoo entraîné <laughs> yow ñooñu góor yàlla bu entraîné da ngay mel ni ñun wow koŋ. Mhm. parce que loolooy dund dëgg kuy dund dëgg buy entraîné day wow koŋ. Mhm. te kuy entraîné du jël dooleem di ko yëkkati si peuple am. dëgg la képp kuy góor yàlla. Mhm. bu dee yow yaa ngi may dégg bu baax. Mhm. bu dee da ngay jaay entraîné nag ñuy fekk sal mhm. su dee da ngay jaay def wala fitna nga ñëw si ñun. ñu wan la nu ñuy defee saal ak nu ñuy wootee fitna. mais kuy jaay ne yow da nga am fit da ngay bàyyi ba ñoom sóodi njàpp nga koc leen ne leen. Mm-hmm. nguur bi wala njiit taa ñoo ma yónni. ñu ñëw fu ñëw pour fexal leen mais fekk ay maire fu ñu toog ay jigéen. di leen dóor mm-hmm. loolu booy c'est lâche. boo dóoree maire boobu sa yaay nga dóor. Mm-hmm. boo dóoree jigéen boobu sa sœur nga dóor. parce que ndax lan ay 15000 francs wala tentaw. tentaw ñun ñoo ko mën a am. ñun tentaw jaaxluñ xam ban tentaw lañ bugg tentaw bi nga xam ne dañuy dugg si naaj bi muy metti wala sama rakk bii bilinki yor cag-cagam bii. tentaw boobu moo ñu neex. mais tentaw boo xam ne dañ ma koy jox si lu yomb. Mhm. yàlla ma si yàlla musal xaalis bu yomb. Mhm. mooy gàcceel rek. Mhm. mooy xool leen ñu ngi leen na booy ner gis na nervi man maa koy déclaré tey nee naa temps bi peuple bi muy néedoon nervi bu ñu jàpp. ah nañ ko boom. yooyu ba ñoom dañuy man maa ko man soo. nervi bu ñu jàpp. dañ koy boom. parce que ñoom dañ leen yónni. di leen mhm. jox ay armes wala di leen jéem a financé. Mhm. nerf bi buñ ci jàpp ko boom parce que nerf bi sax day yàq dëkk. Mhm, parce que boo nekkee njiitu dëkk wala ngeen nekk ay njiitu bërëb. police mu ngi fi gendarme mu ngi fi. dëgg la ah. mais boo demee bay jël ay nerf di ko bugg boole ay police. yaa ngi yàq suñu police parce que police Sénégal ñëpp a leen respecté. dëgg la gendarmerie Sénégal ñëpp leen naw. booy dañuy jàng sax am ay bac sax bugg nekk. ay sergent chef police wala ñu hmm. nekk ay gendarmerie mais nga jël ay gars xam ne jànguñu xamuñu gat hmm. boo xam ne mënuñu dara si town bi hmm. ah, naan ay dañuy jéem a ak ñoom boole leen takk der yi ñun on respecte que ñoom ñoo yor kaaraange dëkk bi mais war a jug si seen bopp parce am na yoo xam ne dafa ñaaw. tey boo sànni message état message bu may sànni peuple bi laa ko njëkk sànni. ak homme de tenue yi. Hmm. après ma ñëw si ñooñu ñoom. parce que man lu may sànni message bi may jox homme de tenue mooy. Hmm. homme de tenue nee nañ on nous tue on ne déshonore pas. loolu diis parce que yow hmm. boo demee bay sol. vert jaune rouge pour servir sa peuple. kon da nga war a taxaw sa peuple. ñun am nañ ay rakk militaire am nañ ay rakk gendarme ay rakk police ay grand frère ay colonel ba si ay général. kon ñoom ay référence lañu war a doon si peuple bi. parce que tey boo xoolee temps bi nu mu demee nii. Mhm. ba gars yi naan dañuy jël ay nervi mhm. di ko yokk si police wala gendarmerie. Mhm. foofu la lobby commencé. mooy lobby lan. franc-maçonnerie ak affaire lu ñuy ñoddi. parce que tey ñun. suñu corps militaire wala corps gendarmerie wala police rek. Mhm. doy na sécurité. parce que sénégalais Sénégal boo nekk temps bu ñu gën a respecté si affaire mouvement police ak gendarmerie. Mhm. mais gars yi dañu ci commencé dugal corruption. corruption mooy lan nga jël gendarme teg ko nii police teg ko nii jël nervi teg ko si kanam. Mhm. ba pare jël nervi bi jox ko arme. désarmé policier bi ak gendarme bi. ba pare ne nervi boobu. door ko peuple bi te kii war a taxaw peuple bi ngi foofu am fa garde muy police wala gendarme. mais peuple bi. ñoom mu kenn mënu leen nax bu dee gars yi dañu bëgg nax gendarme yi bëgg nax policiers yi mhm. mais peuple munoo ñu nax parce que ñun ñoo ngi fi ñun ñooy ñun ñooy gendarme peuple bi mhm. ñooy policier peuple bi ñun ñooy nervi peuple bi ñun ñoo fi taxawal peuple bi néew di doole yi mhm. comme daa mën nañoo jàpp ni Sokane moo fi taxawal euh, nervi bi bu peuple man maa fi taxawal nervi wu peuple bi ñoom dañuy wootee branche ñun ñoo leen daax créer branche foofu bu ñu eggee foofu barki maama dañuy daw parce que ñun dañu ànd ak yàlla ànd ak yonent bi. Mhm. ànd ak Isa ibnu Mariama mhm. mu boole kook lépp muy jullit chrétien laayeen murit Tiijaan xaadir ñaseen waaw mais yow eh, yow gisoo kon affaire nervis gars yi ni ñuy jëlee gars yi di leen néewal doole bu yàggee guerre civile mënul am suñu dëkk fii Sénégal Sénégal yàlla nañu yàlla musal si guerre civile mhm. mooyee sax bu ko gars yi di tudd ah mais parce que ñi ñoo koy xalaat parce que des fois bu ñu jàppee kenn di ko néewal doole bu yàggee riposte day am non loolu ak guerre civile bokkul guerre civile c'est une autre chose guerre civile beneen affaire la nan la nekkee mais ñun lii xam fan lan lan moo xew nii Sénégal dëgg la barki alxuraan nguur buy jeex moo nekk nii. nguur buy jeex mooy lal ay pexe parce que yow lu yàlla nguur du dëgg. benn nguur dëggul nguuru yàlla da ngay dëgg. Mhm. moo tax nguur nag buy jeex africain moo bëgg nguur. Mhm. africain yi dañoo bëgg nguur mos rawatina ñun suñu nguur yi nga xam ne seen bopp yi di ji defuñu fi dara nguur seen bopp la nga xam mais nguur buy jeex nag nii rek lay demee. Mhm. di créer ay tentation pour jéem a tiital peuple bi mais peuple bi ragaluñ dara mais guerre civile beneen affaire la. Mhm. guerre civile du ay nervi du ay affaire yooyu noonu. loolu bugguma koy tudd sax parce que loolu dañu loo xam ne duñ koy tudd. mais fii. Mhm. képp kuy jéem a fexel Sénégal wala kuy jéem a naan da ngay wengal gaal bi. sa kaw lay këpp. kaw lay këpp dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku référence la si àdduna bi. you know everybody need Sénégal everybody want to come to Sénégal to see these because Sénégal mhm. moo nekk town boo xam ne country boo xam ne when you come to Sénégal you see that people will smile <laughs> da ngay gis gars yi dañuy waxtaan dañuy ree you know jàmm sant bi day daw mhm. nobody is nobody mhm. it's only God can judge yàlla rek mooy juge lool Sénégal la am da ngay gis chrétien bi jullit bi est ce lo xam ne looloo am Sénégal amul leneen mais leneen luñ fiy jéem a day këpp seen kaw nguur bi mënuñu waay ñoom dañ leen fal bu ñu fàtte loolu si manifestation lañ tàngalee ba ñu ñëw fal ñoom ñu ñëw bett ñu gàcceel ñu ñoom nañuy nangu dëgg. parce que koo gis si dëgg ngay judd si dëgg ngay mujj. nguur bu dul jeex amul. Mhm. benn nguur moo dul jeex only God. Mhm. only God is definitely. Sokane na nga gisee ñaari góor yàlla taxaw sur seen di fóonante. boo déggee. ku teel ki doon wax Cheikh Bamba nee na mujjum jamono yegg si na <laughs> mujjum jamono lañ nekk. mayaat ko mbokk internet yi déglu leen lu. boo déggee ku teel ki naan. Euh. ñu naan Cheikh Bamba nee na yarabana mujum jamono yegsi na mujum jamono mujum jamono moo nekk ni mujum jamono ngay gis ay góor yi bugg nekk jigéen mhm. ay jigéen yu bugg nekk góor mhm. mujum jamono ngay gis ñaari góor di sëy mhm. mujum jamono ngay gis ñaari jigéen mujum jamono ngay gis góor bu bugg changé sexe am mujum jamono ngay gis jigéen bu bugg changé sexe am mujum jamono ngay gis jullit yi di xeex seen biir bu ñu jamono ngay gis jullit yi du ñu ànd si dëgg. Mhm. mu ñu jamono ngay gis jullit yi di dem di tooñ sunu mbokk chrétiens yi. mujum jamono ngay gis chrétiens di tooñ jullit yi lépp si mujum jamono la. Mhm. di dooleel seytaane. Mhm. mujum jamono ngay gis nguur bu ñu fal gëm ko jàppale ko pour mu jàppale peuple. mu ñëw war askanu peuple mooy nguuru waa APR yi. loolooy mujum jamono. féewale tas yaakaar boole seytaane mooy yàlla du ñu wax dëgg loolooy mujjum jamono mujjum jamono mooy fépp fu ñu wax yonent bi salaa salaam ñu koy jéem a tuutil te ko kenn mënu ko tuutil koo koy tur bi nga xam ne boo ko noddee ñëppay bég mm-hmm. mujjum jamono mooy da ngay gis xarit ak xarit depuis booy xaalis am xamantewuñu mujjum jamono mooy indi lan gëmoo sa bopp mujjum jamono mooy nga nekk diine jullit mm-hmm. ñu wax la xaalis mm-hmm. nga ne gëmoo doo jullit nga changé religion loolu yëpp si mujjum jamono la. d'accord waaw mais tamit loolu nan nga ko gisee loolu nan nga ko gisee. góor ak góor mooy wane la Sénégal gars yi dañuy wax rek. Mhm. am na yoo xam ne mënu fi am mooy lim la wax Sénégal town peace la. Sénégal is peace country man Sénégal. Hmm. the last country you come to in the world you see peace here is Senegalese people. Mhm. I'm telling mhm. a góor ak fonde wala. Mhm. seen tur yooyu xaw ma. Mhm. borom ñaari tur yooyu. loolu mënul am si dëkk bi dëkk bi bàyyi dëkku Baye Niass la. Mhm. dëkk Serigne Touba la. dëkk El Hadj la. dëkk ji Bukunta la. dëkk Cenema ci dëkk Insa ibnu Mariama la. Sénégal loolu fi am leneen luñ fiy ñoddi. dañuy feeñ parce que sunu maam yi dañoo liggéey démb fekk juddooguñu. senegal foo tourné di nga gis jàkk ñuy nodd. dëgg boo tudd ñu ngi noddu jàkk di nga gis nit ñi di julli kon ba ba ñuy dee. dëgg moo fi am. ba ba ñuy dee maa ko wax tey Sénégal. Mhm. mais nag képp kuy dooleel naan na ngay jéem a dooleel affaire yooyu noonu. Mhm. du soo sax mais yàlla moo koy fayal boppam. parce sunu borom dëpp na fi ay dëkk. Mhm. boo xool si alxuraan dëpp na dëkk ndax affaire yooyu noonu. affaire yooyu mais su nekkul lobby yi demul ba léegi dafa dugg Sénégal. ba non gars yi ñooy xam tax ma wax loolu loolu mooy xoolal taal mi nii xoolal nu mu mel xoolal fii nii. lobby boobu ñuy amu fi. dëgg la ay lobby naan. PD ak ay LGBT ay góor jigéen yooyu noonu non yooyu yooyu yooyu noonu mhm. booy nañ ko fasal fii ku ko si njëkk a fasal man ngay njëkk gis mais bu leen neexee nag naan dañ koy jéem a dooleel mhm. mais ku koy dooleel nit munoo dooleel lu dul dëgg mhm. nit doomu aadama munoo dooleel lu dul dëgg luy dëgg rek ngay dooleel muy dem muy rasulullaay mais boo doole lu dëgg du dem ay kalaat maa nga yem ak ay pléña parce que tey boo jaaroon fi benn booy bu ñuy wax naan péede lool tali bi ñun fii doo gis booy bu booy bu rax woo rax rax lu woo sax buñ faja ko man su ma <laughs> njaabee seeb gis la sax <laughs> eh? ngay rax rax lu woo sax ma wax ak yow dëgg la est kon yooyu mënu fi am mm-hmm. mais nag gars yi nañu fagaru fagaru moo gën faju mm-hmm. parce que lépp suñu nguur njiit yi la rek parce que ñoom ay corrompu lañ ay complexe lañ mm-hmm. parce que tey boo demee lu toll ni ñun suñu nguur yi suñu njiit yi tey ñun ñu ëpp peuple bi far leen ñu war a taxaw peuple bi. Mhm. ñu dem di déglu nasaraan yi di far si nasaraan mhm. ñoom ñoo fi waral loolu. Mhm. parce que bu dee ñoom bu ñu ngi julli. wala ñii ñu ngi dem église. xam nañ ne loolu amul si jullit. dañ lay rey suul la si chrétien sax nanguwu ko bible bi sax nanguwul loolu kon ñoom ñooy jéem a topp tubaab yi tubaab yi di leen dugal si ay géemu franc-maçonnerie parce que kuy affaire franc-maçonnerie ñëpp xam nañ ñu mu demee mais nag Sénégal ñun tollu ñu fu ñuy franc-maçon yi di ñu manipuler. Hmm. suñu njiiti nag bu dee ñoom xaw ma dañuy jéem a ñoddi xaw ma dañuy jéem a dund. Hmm. pour business yooyu. dañuy nax seen bopp Sénégal 18 millions yëpp ay hmm. croyants lañ. dëgg la ñoom ñooy def seen sondage yooyu di fet naan ay quinze millions lii kay dañuy duul 18 millions yëpp ay croyants lañ parce que jullit ak chrétien fi am. dëgg la dëgg la loolu dëgg. leneen temple da nga temple góor jigéen. ah wala église góor jigéen. amul fenn mu amuñu doole. bu ñuy woote doole nañ ko def. wala bu dee ñoom dañ leen ngeem ñu def ko mhm. ku si def ñu do a yow ku ko si ñun ragaluñu loolu de ñun tey xoolal we born into Muslim and we die into Muslim sometimes we born into Christian we die into Christian loolu am all time my time mm-hmm. you know we born in here Sénégal we know all day for Sénégal we know we are <laughs> don't run any things is peace country people mm-hmm. we come do bad mm. we see soo kaana mooy ñun ragaluñu dara képp kuy jooma ñodd fii lu metti mm-hmm. soo kaana ngay njëkk a gis mm. Sénégal looloo fi am julit chrétien musulman murit layan tiijaan xaadar amul leneen amul leneen foo dem ci Sénégal loolu la ñuy dund mhm. muy sam fu mu jógee Kaamaas muy Fuuta muy Tiwaawan muy Thiès muy Touba muy Cenaba muy xar ya fépp ci Sénégal mhm. looloo am peace jullit chrétien mhm. kon bu kenn yàq suñu Sénégal kenn mënu ko yàq alors mi ngi noonu nee na euh, Sénégal bu ñu ko yàq bu ko kenn yàq bu ñu jógee chaque jour rek ci actualité nee naa ci la ñuy waxtaan jamono ji dégg nañu benn euh, benn féticheur ku ci mel ni Koune Kanté neen day xar géej gi. xam nga Sénégal ñoom ñooy mooy lu ma Sénégal ñooy jël ay affaires yoo xam ne. Hmm. di ko dooleel wala di ko fen yooyu ak duul yooyu Sénégal. gars yi tal nañ leneen kurul kooku man tur waxaw ma kuru kan. kuru kan man yooyu bëgguma ko sax du débat yi kooku yooyu du bàyyi yooyu wooyu xeesalkat yooyu yow Sénégal ñooy xam nga fii lan la ñu war a wax saraatal mustaxim mhm. saratal mustaxim mooy nu ñuy jaamoo yàlla mhm. nu ñuy wàññee seytaane wala nu ñuy yokkee fa yàlla mhm. mais ay kunkande yooyu xaw ma kunk yu ñooñu waaye booyee nga xam ne ay ko xam fa ko ko fu mu dëkk sax koo dafa dëkk Sénégal ku xanaa xamu kooku si yoon si sariya dañ ko war a jàpp caw ko ay xiir wala taal ko wala lakk ko <laughs> yow li profet bi ak yàlla lu mu wax si alxuraan yonte yàlla Moussa lu mu def si géej gi nga ñëw nit naan yow da ngay jéem xar géej gi gars yi bu ñu may débat ay tur kooku ay ñooñ. moom sénégalais yi ñu am ba ba pare lu ñu ci gën a jaaxal mooy nee na moom jour tamxarit la ko bëgg a def. waay waay waay waay jour ñoo koy dem jàpp nday woote loolu. <laughs> maa ànd ak ma fi am ñu dem jàpp ko ñu ànd ak moom ba foofu. Ah. ñun moom ñu xar ko ci géej ñoo koy xar. Sénégal nañ bàyyi seen affaire yu ñàkk fay doy ay kunkande yooyu du débat. Eh. gars yi nañ débat xam loolu yëpp loolu yëpp ay politique nguur bi la rek. Mhm. pour ñuy jéem a fàtte taan mu méttee. dëgg la taan bi dafa métti nañ wax ci loolu taan bi dafa all of my time we had everybody suffer here. Mm. People come, wake up early, they cry, Dude. morning, evening, night. Mm. Everybody don't. <laughs> gars nañu wax town bi waaye ah, moo loolu. la ñu wax nañu wax si town bi nu mu méttee. mu ñëw ba foofu waay waay nañ bàyyi kooku waaye man kooku ay kumkaande yooyu dañuy yooyu ñooñu bokkuñ man ku nekkul si alxuraan. Mm-hmm. du ma wax ak yow parce que alxuraan la lépp nekk. Mm-hmm. yàlla dafa wàccee alxuraan. te boo ko doon wax lan nga xëy wax moom. aw ma jotu kooku. man kooku aw ma jotam kooku lu may parce que ay naan day xar géej. Mhm. parce que ñun ay julit lañ. ñun am na wax yoo xam ne soo ko wax day mel da ngay blasphémer. Mhm. exemple la. Mhm. da ngay bokkaale yàlla. yonte yàlla Moussa prophète la. kon man kuy nekk fi di wax ay wax yooyu noonu. man si yoon man bu ma la jàppee suñ dayee ma ak moom. am koy sañ naa jël jamate ko ba mu sedd. <laughs> yàqul kàtte barki alxuraanul karim kooku jour bu ñu dayee ba ñu jàkkaarloo. Mhm. te moom xam na moom bu baax parce que sookaane ñëpp boo ko xam. dëgg la su moom lu muy woote mu ngi si moom dañoo xar ma. mu ñëw xar la te bàyyi ah, géej na lool loolu muy wax noon géej moo wër àddina kooku duulam yooyu nekkuma si. <laughs> géej moo wër àddina ñëpp xam nañ géej Mambulaan. Mhm. géej. isam li la. su dee lu muy woote ne ñëw xar ma moo gën. mu gën muy xar mu dem xaral ñu waa nguur bi. <laughs> Ah, dem xaral waa nguur bi. Euh. moo gën muy wax fenam yooyu. xeesalam yooyu ak. bëtam yooyu mu kolir yooyu fenam yooyu mhm. góor yàlla du mel noonu góor yàlla da ngay nekk góor xoolal sama rakk yi booy ñu ngi nii liggéey rek lañ xam mhm. booy xool leen liggéey rek si naaj bu tàng bi mhm. mais nguur bi xamuñu lii xoolal booy ay booy ndaw gëm seen bopp di liggéey ndax bañ a def ñaawteef xool leen ay référence lañ tey ministre boo jël teg ko ci kaw saret bi mu ñor parce que xamuñu dëgg mais xolol booy ay jàmbaar lañ ñu ngi nii xoolal seen matériel lañ yor liggéey ko ab dañ koy dem jaay jox seen yaay ak papa yi te ñoom ñu nekk fi di jël xaalis dëkk bi. Mhm. mais xoolal booy tey kii rakk yi ñii soo leen jël taxi jox leen ku nekk taxi li ñuy liggéey ñu liggéey triple bi. Sénégal exemple yaa ngi fii. Mhm. gars yi nañu bàyyi di nax waa dëkk bi. mënuñu nax waa dëkk bi ñëpp a yeewu ñëpp taan bi fépp la mete mhm. xoolal sama rakk yi xoolal jëlal booy jëlal jëlal booy ay jàmbaar la ñii ñooy. amul ku dul jeexal si àdduna bi dañ leen faroon si dëgg jàppale ñu ñu nañ dem keneen ñëw kuy ñëw nag yàlla rek ko xam kuy ñëw yàlla na nekk koo ne moo jig sénégalais yi jig africain yi parce du Sénégal sunu mbokk yaa ngi fi Guinée yi Ivoirien yi Nigérien yi ñëpp Sénégal is all country in the world when you come to Sénégal you see the people Nigerian people Guinean people Ivory Coast people South people white people black people from United States Sénégal mooy town boo xam ne. dëkk boo xam ne dëkk bu dàq si monde bi mooy Sénégal mais gars ñoo bugg yàq Sénégal te mënuñu yàq Sénégal Sénégal nii la toll nii ñun loolooy suñu bayre mais ñun suñu xol yëpp léegi dañ ko bëgg def nii ndax lan gouvernement bi gouvernement bi mooy ñan ñu ñu jiite ñu ñu jiite ñooy lan ñu ñu jiitewul si dëgg dañ leen fii jëlee man li may ñaax waa askan bi taan bi booy néew di doole bépp booy na nga yor sa carte parce que waa ji pare na deux mandats lañ fi waxoon kon moom deuxième mandat pare na na dem c'est que lu ñuy kii quoi nit boo paree rek demal du lu ñuy ay. bul di ay violence ay affaire bu rafet. yow yaa fi toog wax fii gën a fii ne nañ jëlee Ablaye Wade lii ak lii. yor ay xeer ay ñoom Moustapha Niass. tey ñoom ñooñu ñoom loolu duñ ko fi def te ñoom ñu war leen vaar leen ñu yor ay xeer nii. juróom ñuy tàngal taan juróom ñoom nekk ñu foon man maa ngi foon. ñu xeex ba ñoom ñu falu. ñoom seen nguur a ngi jeex ku nekk nuñ koy wax dee waaye ku fegal xaw ma lan xam man du ma wolof. is xam ne loo ñoom jeexal nañ buñ jeexalee nañ dem si jàmm rek jàmm moo gën looy gis gars yi nañ ñoo di jàmm ñoo di leen jàmm mais ku ñuy jéem a ñoo di fitna rek ñun buñ la fekkee du doy parce que peuple bi xajul si kenn peuple bi. peuple bi xajul si armée xajul si état xajul si gendarme xajul si peuple peuple bi 18 millions lañ te armée bi. gendarme bi policier bi peuple bi la fi nekkal gars yi nañ xoolaa rafetaay bi waaye ba pare gars yi nañ bàyyi lu may lu am lu ma metti lu may wax tey yéen leen fi indi sax yàlla mais tabaski ñëpp xamee nañ tabaski jaay xar tabaski lu ñu ko xamee jaay xar si mbedd yeeg ñëpp ñëpp di ñëw di jënd mais lan moo tax Sénégal léegi bu booy di jaay xar ñu naan préfet bi préfet bi nee nii préfet bi nee ne léegi yow préfet bi moom xam na lu tax ñu créé tabaski hmm. préfet bi moom xam na lan moo tax yàlla wàccee tabaski ba ñuy rey xar préfet boobu xam na ko mais Sénégal loolooy naa no loolooy senegal Sénégal loolooy folklore Sénégal jaay xar fu nee lañ ko xamee. Ah, mais tey ñu naan préfet bi nee na tere na fi gouverneur bi tere na fi mais loolu yow loolu fan la am ñoom karkaar yooyu ñuy jël xaalis bi ñuy jël dañ leen ko tere. non non pétrole bi ñuy jël xaalis bi géej gi jaay terrain yëpp terew ñu leen ko man sama booy yi ñu ngi ni sama mafia bi gars yi fii lañ yor seen xar yi ay ñoom Tafa Junior ay ñoom Seydou Boy ah ayoon Batika gaa yëpp di jaay xar fee. policier bi ñëw fa ne préfet bi ne lii calculé ñu policier bi ñu indiwaat commissaire bi. Hmm. commissaire bi ne préfet bi moom moo ko woo parce que préfet mooy supérieur am. si préfet moom xamul ne yàlla mooy supérieur am yàlla bi wàccee tabaski wax na ñu ray xar. Hmm. su doon yàlla dafa wàccee woon tabaski ñu rey nit nag préfet boobu dina dund ah dam leen di laaj yéen journaliste yi. boobu bu doon yàlla dafa dëppoon carte yi. Hmm. tabaski ñu rey ñuy rey nit. préfet boobu di dund ay maam duñ dund ba ay arrière arrière maam duñ dund. gars yi nañ bàyyi seen yëfu naafeeg seen yëfu kasara yi ñuy def. Mhm. fii eh. Mhm. dëkku maam Bambala ak dëkku Alaaji Malick ak Baay Ñas ak Limaamu Laay instant ibnu Mariama ñun suñu original bu ñu ko yaakal jaay tabaski ci mbedd yi xar yooyu noonu loolu daa am mbóot bu ñu loolu aar la mhm. loolu yëfu musulman la loolu yàlla daf ñuy indil ay blessing yu bari mais li mu la rek gars yi seen lëb yooyu ñuy jéem a créé dañuy tuul mënuñu fi créé yooyu seen lëb moo tax ñu naan dañuy jéem a xet képp kuy fekk ay ndaw. Mhm. jàppale ñu booy si liggéey booy di liggéey. Mm, booy di daan seen doole yar seen xar nu mu méttee pour ut si dara. Mhm. ñaan nañ leen koy jéem a kooku du jullit. dëgg kuy tere xar jaay. au monde. Mhm. <laughs> the first country in Muslim in the world. <laughs> when you go to Arabian country. wala nga dem Iran. ah ba ay Azerbaïdjan. Ah, nga dem ay Palestine dem ay. nu mu tudd waay Indonésie. Mhm. dëkk yooyu boo fa demee ay Afghanistan njiit yi wala dañuy jël ay xar di ko joxe. mais fii Sénégal ñun suñu njiit yi. Mhm. nee ñooy tere gaay jaay ay xar. préfet kan mooy préfet si alxuraan daa am préfet <laughs> gars yi nañu nañu sonal si loolu waaye. man moom du ma bàyyi mukk soo kaana ak mafia bi. porte parole peuple bi ak néew doole du ñu mus a bàyyi. man lu may wax sénégalais yi. keep doing keep keep cool wala keep moving to fight it's time to be fight waaw ah, dafa jot ñëpp takk seen fit ànd ak ñun injustice yi nekk si dëkk bi yëpp ñu jëlee ko fi ñee lu mu leen wax mooy jeexal nañ nañ dem maa ngi ñaanal ñëpp kuy sénégalais wala nga nekk sa nekk Sénégal yàlla may la wér gu yaram gudd fan. di ñaanal sama booy yi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi. booy prisonniers yi. gars yi nañu xoolaat seen dossiers yi. jàpp nit tëj ko ay 15 ans 20 ans. te yàlla tëjul kenn si loolu. gars yi nañu xoolaat seen affaire yooyu justice bi nag lu may wax ñoom kuy woote justice da nga war a xalaat yàlla war a xalaat tomb ba fee armel ya justice. Hmm. fa nekk. juge yi. procureur yi avocat yi. ah greffier yi ku si ne na nga xoolaat sa bopp xolaat sa taxawaay ak sa kàddu parce que képp kuy woote justice. justice su dëgg mi ngi fee di la xaar armelia bërëb bu mujj bi loolu il ñu koy wax parce que gars yi neen justice bi dafa corrompu loolu dafa ñaaw justice dëkk di baajaw si nguur. justice indépendant la mhm. personne n'est au-dessus de la Sénégal soo muy gouverneur bi muy préfet bi ñun ñëpp ñoo war a bokk fu ñu taxawee fu ñu war a jugé gars yi nañ bàyyi seen affaire yooyu noonu gars yi nañ jàppale peuple bi waaye këlëb mu lay maas waa euh, Dakar Net Dakar Net mhm. mafia bi ñoo leen di ñaanal mhm, yàlla def leen ba ngeen nekk Sénégalu international net képp kuy internaute ñi yor site yeeg lépp. Mhm. maa leen di ñaaral gudd fan ak wér gu yaram. Mhm. ba pare bu ñu ragal dara ñun lu ñuy wax nañ koy génnee. Mhm. gars yi di xam dëgg bi nekk si dëkk bi. ak booy lu ñuy dund. am na solo am na solo trop parce que dëgg moo ñëkk. moo mujj wasalaam këlam. waaw mbokk internet dakarnet.com yi tey li leen leen andiloon ah, daw leen Sokane koo xam ne lu ma ko tàyyi di wax nitu dëgg la moom fu ko dëgg fekk incha allah ah, dina ko wax ah, di leen jox dig daje ak keneen incha allah moom it di ko encouragé parce que moom jot ko jamono ji yombul parce que nit ñi dañ koy déglu woo nañ ko mun nañu ne yéen samay frère leen heure boo ñëwee rek incha allah ñu def ko di nuyu ñëpp mbokk internet Dakarnet yëpp dundu nuyu sama camarade bi Dieye jaajëf.